ngi tudd Ousseynou Ndoye di président Agifor bu kayaar c'est vrai que ni dëkk bi de temps en temps dañuy am ay coupure ndox coupure bi li ko waral mooy que ni c'est un problème d'électricité d'abord damay def benn rappel rappel bi mooy que ni ñun am nañu ñaari mandat yoo xamante ni suñu mandat jeex na bi fi sous-préfet Mbeng nekkee état mayoon na ko mu renouveler li nga xamante ni mooy membre comité directeur Asifor si comité directeur boobu la ñuy fale ñi nga xamante ni ñooy dirigeant Asifor yi léegi bi ñu commencé fal ñu jël ay personnes externes à l'Asifor ñu jiite fal googu ñu fal ba nga xamante ni dara desul lu dul ñu fal un un bureau si la état décidé ni Asifor yi existé tuñu dañ leen di jox ñi nga xamante ni ñoom ñooy les privés là donc depuis lors ñun mënatuñu jàkkaarloog askan wi rendre leen kont ci li nga xamante ni moom la ñuy doxal problème bi li ko indi mooy que ni ñun bi ñuy soog a ñëw fekk na la fi yow on avait 911 clients tey ji nous nous retrouverons nous nous retrouvons aux environs de plus de euh, 3500 abone si benn forage boo xamante ni pompe bi 45 kilos lañ ko fekkoon ñu yóbbu ko 52 kilos pour mën a pallier au manque d'eau jëndoon benn groupe électrogène boo xamante ni moo ñu daan jàppale ci coupure courant yi mais il s'est trouvé que le forage de Kayar dafa jot durée de vie parce que durée de vie forage vingt cinq ans la fi mu toll nii forage bi dee na parce que calcaire bi sax pomp bi daf koy remonter ñu bindoon état pour que ñoom ñu may ñu possibilité ñun ñu foore un deuxième puits si suñuy moyen wu bopp bi ñu demee au ministère de l'hydraulique ñoom dañu bañoon pendant plus d'un an ñu topp seen gannaaw ba benn jour ñu wooñu ñu ni léegi da ngeen di dem au niveau de l'OFOR ñu ngeen waxtaan ak le directeur de l'OFOR ñu jël suñu lettre boobu bindaat beneen lettre adressé ko au directeur de l'OFOR entre temps la ñu OFOR nongul fi mu toll nii may wax ak yow nongul nañu ñu gas un second puits léegi groupe électrogène boobu euh, par le biais des coupures d'électricité groupe bi panne ñu ni puisque ñun dañu war a gas un second puits te pour gas bi dong gas bi dong matériel bi ñëwagul gas bi dong euh, foreeru euh, effort yi dañu ñu wax ni il faut débourser au minimum ay cinquante millions le directeur monsieur Diokh de euh, de de l'équipement de l'OFOR moom moo ñu ni affaire boobu bàyyi leen ma waxtaan pour ñu atténuer ñu wàññi li nga xamante ni mooy xaalis boobu ñu leen wax fi mu toll nii ñu ngi bëgg ñun ñu wàññil na ko à 46 millions léegi ñu ni 46 millions yi bu ñu ko waree dépenser sur fonds propres amatuñu pour di réparer li nga xamante ni moom mooy euh, groupe bële parce que li ñu yor ci xaalis dañ koy denc pour gas suñu second boobu. entre temps coupure sene gi ñëpp gis nañ ko coupure yooyu moo waral muy am ay coupure d'eau intempestif te lu coupure bu yàgg yàgg yàgg mësul la romb 4 euh, heures de temps wala 5 de temps après ndox ñëwaat. kon population bi c'est parce que dañ leen a tàmmaloon am ndox 24 heures sur 24 ñoom looloo tax bu coupure amee donte une heure de temps la sax ñëpp yuuxu condition yi fi mu toll nii tant que état mi nga xamante ne moo arrêté woon renouvellement yi jëlaatul décision ni nañu renouveler ñun mënuñoo renouveler suñu bopp loolu donc moom mooy problème bi mais nous sommes prêts tey tey tey tey bu su préfet ñëwoon ni renouvellement nu sommes prêts à rendre le